ko soob la def ca muriid huwa allati yafalu ma yuriidu huna allati yuriidu almuriidu wa huwa ayun samadun wa baaqi subhaanu suuka nafin wa waaqi nan sant tey feddli sun tawhiid baxda salaatina ala alwahiidi te seetlu yeneen yi ñëwoon ci duniyaa waxe kàddun lan wan ku nekk wéy na te seetlu xayru xalqi ak saabaam ya ki tax ba yàlla bind mboolem jaam ya teewul mu dem ñu naa wama muhammadun illaa rasulil xalxala lin mu doon duniyaa suroon kerek taxoo di yaale xayrul wara waa makka duñ ko jaale waaye yàlla yóbbu ahmadul makkiyo dellu si yóbbu ahmadul mbakkiyo lu bàyyi sunu maam ceerno ibrahima kële di xaadim kiley maxduma yooyu le yaari xew ko yetteel fa daarul muxti xew wi le dimbetteel ab ki ala seydi ibrahima ma jooy le suuf ibran awa tafima abki ala xalili ibrahima ma dellu jooy le asamaw xadima janta ngi jooy maam cerno ibrahima weera ngi jooy laylan bada bayima ca moomaat sunu weeru kor wa jooy na na filun korong na tawba soom ma jooy si saa ndaama la sañcan daaru ca alsasin cay yàlla maa ka waaru waroote waaru garaw gawan daawu jommeti mi mbirëy ne leen waawu ay na la xaali xalilullaahi way jooy la leen masaa na jaay lillaahi ay na laa fardi xalilillahi maam Cerno Ibrahima auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi noo ngi lay nuyu nun waa Daaru Muxti yëpp ci turu Serigne Mahmoudan mii fi jóge te jiite woon mbooloo mi jóge Darou Mousty ñëw siyaare si la ak bokk yi ma àndal waa kër Serigne Moustapha ngi fi waa kër ngi fi lenn ci taalibe yi ñu ngi fi Serigne Sidi mi ngi nii ak sëñ Kara Jum jarbaatu sëñ bi sëñ Modou Boussa Dieng xam na ci kër gi la bokk xam naa bu ma limee mën na ma mën maa juum waaw ñun ñëpp ñu jóge Darou Mousty ñëw ci bis bi nga xam ne Euh, sag baax moo tax nga sàkk ko ñu di la ko defal si te jamono li muy xat xat xat ak li ngay bari bari bari ay yitte ak li la sëñ bi teg teewul nga sàkk ko ñu ñëw di ko fi def si te loolu tam jubluwoo ci dara lu du defaru bokk ak yaatal ko kon nag noo ngi lay nuyu baax di la siyaara di la xamal ne itam sa jëm ji toog xàmmewuñ ko ak jëmmi sëñ Fallu ndax sëñ tubaa moom li ko yàlla mayoon euh, du fi jóge mukk ku fi toog te toogin toog toogin wa sëñ bu bëggoon yàlla lam joxe woon sëñ tubaa mu bàyyi ko fa loolu moom nattewlu woon ko waaw ndax yàlla ko wax du maye dara di ko nangu ndare bu di ñooñu ñoo wàcc fañ leen fañ fañ leen tegoon te euh, bokk nga ci ñi nga xam ne noo ngi ñaan yàlla nga yàgg bi loolu te gudd fan te ànd ko wér waaye am na nu yaakaar xam nañu ne itam fi sëñ bi teglu woon tànk bi yaa ngi ko fi teg kon nag noo ngi lay ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla may la wér may la fan wa gudd euh, di rafetlu lii ndax bëgg lu baax ak defar bokk doo nga tax nga di ko def waaye kaay ma taral la loolu wax dëgg yàlla dafa yomb yomb na lool waaw waaw kaay ma taral la dong wax dëgg yàlla kon tey jii eh, yaakaar naa ne xëy na am na ñu waroon a ñëw te ñëwuñu te ay yitte moo tax ku mel ne sëñ Abdou bëggoon naa ñëw waaye eh, dafa am ay gan ñëw tey ku sëñ Cheikh moom itam dafa amoon ak ak ak eh, ay teq-teq moo tax ñëwut waaye ñoom ñëpp lañ ko waxoon ñu bëgg a ñëw waaw ah, kon nag Mbàkke noo ngi lay jot li nuyoo sëñ Moustapha moom sëñ Wadaw Balla ak njabootu sëñ Moda Fall gépp jot li itam nuyoo sëñ Abbas mi nga xam ne mooy sëñ Daaru Mooti ak njabootu maam Thierno gépp di xam ne bis bii tey jii di moom nun bésub sëñ Touba lañ ko jàppee waaw ndax sa sa waajur bu baax yi bi mu fi nekkee Serigne Touba bis bii nga xam ne moo nu génne muy bisub Daaru Mooti moo nu ko jox ndax yaakaar naa ne benn wala ñaari màggal lañ ko fi def mu dind ko soppi ko ne def leen ko bis bi nga xam ne mooy bis bi sëñ Touba ñibbisee daje ak maam Thierno waaw sëñ Abdou Khoudous daf daan wax ne bis bii de eh, sëriñ Falloo ko joxewoon képp ku fi nekkal sëñ Tuubaa itam boo ne woon nañ ko bàyyi waxuma la waaye boo ko doon soppiwaat waxuma la soppi waaye boo ne nañ ko bàyyi sax nu bàyyi ko kon nag nu itam li nu fas yéene mooy fa nu sëñ Tuubaa bàyyi woon sëñ maam maam Cerno bàyyi woon na fa loolu leen fas yéene mooy fas yéene rek topp ci gannaaw ni Tuubaa jiitoo Daaru Musti topp ci noonu leen fas yéene itam topp ci seen gannaaw loolu mooy li nga xam ne ba fi sunu waajur jógee su eh, ba fi sunu maam jógee muy maam Thierno Birahim noonu la sëñ Modou Awa Balla toppee woon sëñ Modou Moustapha ba mu fa jógee noonu la toppee Cheikh Mahamadou Fadel mm-hmm. loola amoon nag lu sabitaal du fi jóge mukk ci àdduna mm-hmm. waaw yow nag yaa ngi kii yaa yaa yaa ngi koy doxal te yaa ngi koy dundal mm-hmm. kon nag noo ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax di la jot li ñaanu waa Darou Mouhty gépp di la jot li itam seenu cant waaw di xam ne yow mii di yaa ngi dundal bokk gi waaw boo ko ci ñi ko dagg yaa ngi koy dundal kon nag noo ngi lay eh, sant bu baax a baax a baax waaw eh, di xam ne xëy na eh, mbooloo buñ fi tawee ne la waxal ma xëy na da am loo xam ne danga ko fàtti wala xëy na sam xel du ci àgg waaye day na la leer ne ak cant moom mënut a weesu cant sant nañ ne bu baax a baax a baax yàlla mi nga xam ne mooy boroom ndimbal te ku mu dimbal doo soxla dimbalul kenn yàlla na la yàlla dimbale ci barke Serigne Touba maa ngi nuyu ñëpp di di la siyaare bu baax di sakku itam nga ñaanal ci barke Cheikh Amadou Fati ci weer wi ñu nekk ci barke Serigne euh, ñu nekk taalibe yi Serigne Touba yi Serigne Touba nangu ci ak ñu nekk ay jullit fas yéene itam li nu maam yi bàyyi woon yàlla bu mu réer ci suñu la waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ mi nga xam ne itam mooy suñu waajur di suñu nijaay di suñu lépp di lépp ci waa daaru itam moom itam tax na jotaay bii mu am. <laughs> waaw rawatina nag li dox suñu diggante dafa bari. <laughs> diggante sëñ Fallou ak sëñ Modou Awa <laughs> hmm. ni leen yàlla niroolee. ay yëf. Hmm. nga xam ne kenn ku nekk. Hmm. fa nga fa nga fa nga toll sa sa waajur. ba sa waajur may la lam la may. balaa wax mu am. loolu jàpp naa ne ñoo ko bokk. sëñ Modou sëñ Abal ak sëñ ak sëñ Fallil. loolu ay tegtal la yoo xam nii rek. lii nag ay tàmbali rek la. ay tàmbali rek la. te tàmbali nag boo bëggee mu yàgg. da koy def ndànk-ndànk. waaw ndax bu ñu sañoon ñëppay ñëw. waaw ndax daaru gépp nii lañ ñu def waaw. waa kër suñu Seex Awa Balla nii la ñuy def bu màgg gi ñëwee maam buñu maam Ceerno day yebal waa këram yëpp ñu ñëw yenn soog bu ñëwee su la mm-hmm. wala ci guddi ga mm-hmm. gis nga waa kër suñu Modou Awa Balla itam gis nga ni li ngeen di def mm-hmm. kon nag noonu sant yàlla rek lan def ndax loolu yeyowuñ ko xëy na sëñ sëñ benn ko baaxee rek ñu ñu fonke noonu waaye li yeyowuñ ko kon nag moom dañuy sant baax a baax a baax sëñ Fallu la sa jéey bàyyib sëñ bii mhm. noonu la meloon nag ci man mhm. da daan day ñëw ba fii mhm. daan de ju takkusaan rek jóge jógee fa daaru ñëw ba fii door door dem fa muy dem toog fi ba mu neex ko kon nag waa daaru moom wax dëgg yàlla mënu ma leen a waaye nag uh, sant naa ci yàlla ndax ku toll ni maam Thierno fi mu toll sëriñ bi ak ni ni mel moom bu la ay waa këram fonkee war ngaa defee njort sëñ Bassirou Antaña bu ñëwee suba la màggal moom itam toujours sama kër lay lay lay nekk. moom daal dama caa bari ay yëf yoo xam ne mënuma ko lim lépp. waaw lii nag ab tàmbali la ci. la fi ma tàmbalee nag. mooy bunt bi ndax mooy kër sëñ ma dawa ball. mooy sëñ Moustapha mi nga xam ni. waajurum sama maam la moog sama maam ñoo bokk benn baay. soxna ab sa jaxate ak soxna xari ak soxna ab sa mijur yaay sëñ seexu na. ñoo bokk benn baay. waaw walbati ko nag doom yi tam di sama xeet. ñu bokk néegu géej kon nag. lépp moom sotti teeg def ci rek la kon nag ndoo ngi ñaan ci barkeb ñaari wàllu yooyu nga xam ñoo ñu seq muy sëñ Modou Awa Balla ak sëriñ Fallilu nga xam ne juboo ñoo ak seen borom ba luñ ko wax mu def ko te liggéeyal seen i waajur bëgg seen i moo tax suñu borom boole na fi yàggal wéral suñuy cër lii nag moom ab soññe la ma la ko waxee woon daaw rek sëñ Tuubaa moom moom rek lan am liggéeyam bi it mm-hmm. moom dong lan am mm-hmm. lépp lu koy taaral mm-hmm. di ko dara jaal mm-hmm. di ko jëmee kanam mm-hmm. ci ñun lay nekk mm-hmm. waaye moom la muy am na ko la ko suñu borom may nag ko te dootu ko nangu mukk waaye nag suñu as jaxat neewoon na ma sëñ Tuubaa lim ñaan yàlla lépp suñu borom may nag lay fulla nag nee na mooy mu nangoo ci yow waaye bu nanguwut ci yow it dana nangu ci keneen lim ñaan su ma ba mu may ko moom faw mu nangoo ci keneen bu nee na boo gisee mu ne wala tubitan fii jamaatan tuqiim mm-hmm. assalawaatil xamsa da wan da ban yaa xakiim mm-hmm. nee na faw mu am mm-hmm. waaye nag farlu ku farlu moo cay bokk waaw boo ñàkkee fayda boo ko ci itam yaa yaa ci bañ a bopp waaye nag mu borom ba mu may ko moom faw mu am kon nag liñ li ñu war a fas yéene rek mooy kenn ku nekk fa nga nekk nga jàpp ne yaa fa nekkal Sëñ Tuubaa ku la fa séen xam ni kooku sëñ tubaa nga ne ci saw doxiin ci say waxiin mhm. ci saw melo mhm. su ko defee bu ko ñëpp defee rek mhm. ki fi nekkal sëñ tubaa ak ka fa nekkal maam Thierno seen xel dina dal ci lépp te bu seen xel dalee rek suñ lépp tegu ci yoon kon nag ñoo ngi sant bu baax di gërëm bu baax di yàgg koo def yàgg ko teew bu baax a baax a baax tubaarkàlla li la jagleel ak cant yi itam sëñ sëñ Abdoul Aziz ndax itam yàgg nañ lool sëñ Abdou Samad boo ñuy jàng xam-xam waaw dañ yàgg tàmbalee jaxasoo ngeen di ñu baax ñoo xam ne ñu neex a àndal yaakaar naa ne seen xam-xam boo di ngeen jàng tam réccu leen ci dara ndax yéen a ngi koy jëf baax a baax ñëpp mm-hmm. di sama def naa mooy jiite moo ilimaan ji waaw mooy ilimaan jumaa ji yàqu ci dara moom itam tubaarkàlla waaw itam tubaarkàlla mm-hmm. moom daal suñu xol sedd na mm-hmm. di ko jaar ci seen dan mi ngeen àndal ñëw fi moom itam suñu wëlëri bu yàgg di ko baax moom itam waaye bi yu baax yi ngeen àndal itam yi ngeen fekk itam yëpp ànd ak ñoom jóge daaru ñëw ñu ngi leen di sant bu baax ñoom di leen gërëm daaw ko defee woon laaj nañ ko defaat nag yi tamit muy yokk muy yokk ndànk-ndànk rek ba àgg fañ ko bëggee ba àgg fañ ko bëggee rek barke sëñ Tuubaa diggante sëñ ba Abal ak sëñ Fall nag moom daanaka ñëpp ko xam jërëtut wax jërëtut wax moom ñëpp ko xam ci sell ci nuroo lépp mm-hmm. nuroo ay defee nuroo ay waxi nuroo lépp mm-hmm. nuroo bàyyi bàyyi gi seen bopp seen seen waajur yi mm-hmm. ba may leen lam leen may loolu moom ñëpp ñoo ñëpp ko xam kon noo ngi sant yàlla bu baax di di di sant Serigne Touba ci ci lii mun defal ci ci daaru ndax ab cër la du càggeen ñëpp a ko mën a am ñu sunu liggéey mayuñu ko sunu farlu mayuñu ko xanaa baaxu sëñ bi rek baaxu sëñ bi doo nga ñu ko may tubaarkàlla waaw ñoo ngi sant baax di gërëm baax di ñaan ñu teewee ko nag leen déwén kenn bañ a manqué waaw te kenn boo fa ñëwee mhm. sëñ Sidi laa fekk ci mhm. sëñ Moustapha mhm. ak sëñ Abdou Lahad mais ñu taxaw ñu lool bu ngee ñu lool tubaarkàlla waaw bu ngee ñu lool tubaarkàlla moom sëñ Sidi waaw am lool tubaarkàlla waaw nga xam ne lépp benn la rek lépp benn la rek tubaarkàlla lépp benn jotaay biir sëñ Massamba ngi nii xam moom itam maam <laughs> waaw sëñ Massamba itam moom mooy itam tubaarkàlla waaw kon daal mel mel ni njabootu sëñ Tuubaa gépp a ngi fi waaw njabootu sëñ Tuubaa gépp a ngi fi waaw njabootu sëñ Tuubaa waaw nga Ala Njaay kon doo ci man doole ci ay kàddu rek nga sant ñu bokk yi baax a baax rek te soññante ji ak bokk rek waaw taxawu lislaam bi ak taxawu diine ji ak taxaw yoonu sëriñ bi rek waaw moom li ma doon Euh, wax rek léegi di la ko euh, ñaam nga ñaan ci itam moo di mboolem koo xam ne kii noonub sëriñ bi nga daan sonn ci tas yëfi sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi jàpp nga ne nag fii mu toll àgg nañ foo xam ne fii war nga la nga doon pexe lépp war naa mën a sotti ndax euh, mag ñaa ngi dem mm. jàpp nañ ne itam gone yi fi nekk la seen baay yi mënoon mënuñu ko la seen maam yi mënoon mënuñu ko te man yaakaar naa ne yàlla mayewut dara di ko nangu te eh, mag ñi dañ daan wax ne ku bu yàlla bëgg bañoon bu yàlla bëggoon sa baay gën la du la jur waaye la tax sa baay jur la boo tegee sa tànk fa nga ko war a teg jaar fa nga war a jaar la yàlla joxoon sa baay mu bàyyi ko fa kon nag man nattabliwu ma ne li yàlla mayoon Serigne Touba muy baatin muy zaahir dana fi bàyyi ñu ko sàmm ndax moo ko ñaanoon te yàlla du ñaan dara ci noonu hmm. kon nag képp koo xam ne kii jóg nga te fas yéene jàpp ne war ngaa mën a tas yoon wi hmm. booba nga seet feneen foo jëm te du xam ne du fii hmm. waaw incha allah nun daal liñ fas yéene ku fi nekkal sëñ Tuubaa ak njaboot sëñ Tuubaa ngi noo ngi seen gannaaw fu ngeen fu ngeen nekk rek noo nga lu def noo ngi seen gannaaw na maam Cerno ànd woon loolu lañ fas yéene ànd ak njaboot sëñ Tuubaa gi na leer ñëpp itam waaw jërëjëf moom bismillahi Hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hmm, kilifa yi tedd yi ñoo ngi leen di nuyu. di leen ziyaara. xam naa ci ndigal sunu sëriñ. bi nga xam ne moom ngeen fekk si muy sëriñ Mamour Mbacke Cheikh Amadou Fadil ci la ñuy yëkkatee kàddu yi xam naa kàddu yi ndigal la moo tax ñu fas yéene taasu ak barkeel rek ci kàddu yi jiitu woon ndax. mel na lépp mat na ba noppi euh, jéego yi dafa bokk ci jéego yu ëpp solo ci liy dundal ak mbokk ndax ak mbokk moom kenn du ko tànnal sa bopp sunu borom subhaanahu wa taala mooy tànnal nit ay bokkam ca bu ko sooboo nit kenn mën naa bañ bokk kenn dara yàlla mënoon na tey doomu aadama yépp kenn du bokk kenn dara kenn du jur kenn kenn du am ndey kenn du am baay ndax ci loolu lañuy sose aadama amul ndey amul baay bu ko sooboon mënoon naa wéyal loola bu ko neexoon it mën nañuy jokk genn wet rek muy wetu geño ñi nga bokkal waajur wu góor te loolu li wane mën na ko ndax xawaa mi mbind ci faaruk aadama bu ko neexoon loolu lay wéyal safaan ba it noonu muy nit ñi mënoon nañuy jokk wetu meen rek ca jokk wetu geñoo ndax sayyidu sayyiduna Isa ni mu ko sosee ci sayyidatuna Maryama moo naa wéyal jaam ñuy mel noonu kon ñetti firnde yëpp yàlla wane na ne mën na ko waaye dafa bokk ci xekkam xekkam bi mu def ci as-sunan al-kawniya ak mbokk ba noppi nag dële ci lu rëy ci jokk gi ak dundal gi mbokk googu nag am yoo xam ne daf koy dëgëral li ñuy wax muqawimatul xayaat al uxawiya ci lii bokk ci li ci gën a rëy ndax dañuy wax ne la ca jiitu mooy fexe xamante am taaruf inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabail li taarafu kon dañuy wax ne taaruf mooy liy jiitu ci lu mën a dundal ak mbokk lu mbokk jege jegee jegee ci xamante wuñ luñ mën a jokk seen mbokk bu xamante amee it xamante gi ñu xam ñu xóotal xamante ba ba xam lañ bokk ndax dana tax dundal ga gën a rafet dana tax jàppin wa gën a dëgër dañoo am sunu wajiru daan wax sëñ Mouhamadou Rachid Ndiaye daan wax ne koo xam sa mbokka koo xam lu ngeen bokk sa boppa koo xam sa mbokka koo xam la ngeen bokk nag sa boppa ki nga jàppee ni sa bopp nag danga nga rafetal ànd ba lool daana ci tegit lu am solo daana wax ne buloo ko mbokk mi jëralut na la ko mbokk gi jaral man naa mbokk mi mel ne man du jar dara waaye nag mbokk gi dox seen diggante na la kon bu la ko mbokk mi jëralut na la ko mbokk jaral yooyu koy dundal nag xamante googu bokk ci xóotal xamante gi ngir ngir dundal ko ak jokkoo moo cay tegee jokkoo ga nag taahud moom mën naa am ci jumtukaay yi ñu xam jumtukaay yi jokkoo yi lu mu xat-xat dañu faral di ne jamono yi ñu toll jëleel naa ko def lii ngeen def muy jógee Daaru Muxti ba fii def mbooloo mii ñëw yandu sul sëñ bi nga xam ne ñëw leen fi nuyoo am fis ndiir dem waaye lu mel ne ay wax lu toll ne ay waxtu ngeen am ko fi loolu jëlil naa loolu waaye damay xam ne ku toog ba ci yàgg bi sàngam mu ne la kar téléphone woo la képp xelam dem ci ba mu woo la romb numéro yëpp woo la képp amatoog fayam ndax ni jamono xate ak ni mel ma laa nag ku def lii ngeen def kon lii ngeen def bokk na ci li gën a rëy li gën a am solo ci dundal ko mag ñi noonu lañ ko daan defee mag ñi nemmi konte yu yu dëgër ya day gindi day day dëgëral ci yu bari jëlee naa seen diggante seen i diggante dara du fi am ndax dara mënu fi am dara xaju fi yéen bokk euh, fu ngeen toll yéen yéen a ngi koy koy xam waaye ñun ñun ñun taalibe yi suuf daa am loo xam daf ñuy gindi daf ñuy ràbbale daf ñuy bennale ci lii ci la bokk daf ñuy ci lii ci la bokk sëriñ bi wax sànq ci ci euh, noonu yi nga xam ne jamono ju ne yaakaar ne jekku nañ lii bokk na ci li leen di yonjoxloo buñ ko xeeb ndax buñ sañoon yéen du ngeen gisee buñ sañoon du ngeen nemmikonte buñ sañoon du ngeen waxtaan buñ sañoon da ngeen di xeebante buñ sañoon du ngeen nawlonte buñ sañoon du ngeen nemmi konte ca loolu mooy seen bëgg-bëgg ñoom kon lii li muy ndaw ndaw am na ñoo xam ne bu ñu ko gisee danañ xam ne seytaane échec na échec bu rëy ndax kat bu sañoon lii du am jataay yi du am kon buñ ko xeeb lu rëy rëy la. lii bokk na ci li mandargaal li Serigne Fallou daan wax ci ki nga séqal dana wax ne ah, euh, asgor si nga séqal da nga koy téye da nga naan ko nikk téye asgor xajut cati baaraam koo cof mu wadd ca bari waan ànd boo xam ne ab cofante wala ñàkk nawlonte moo ko moo koy waral suñ sëriñ bii ngeen fekk si wax dëgg yàlla di ci maneen màndarga euh, wax dëgg yàlla teewaay bi taxut lenn taxut waaye xëy na bu dee bu doonee bu doonee nattuwaayu àdduna moo lay tax a jóg xëy na du ngeen ko defal lii li ngeen def yàlla kese la ak mbokk kese moo tax waaye bu doon nattuwaayu adduna rek yoo xam ne ku yëngu-yëngu àdduna la xëy na kon ñi am kon nag loolu bokk na ci lii gën a màndargaal ne yéen mbokk gi moo leen ñor moo leen dundal gi moo leen ñor moo leen lii dana am solo nii ñu koy def mu tasaaroo ndax njaboot gi li ngeen séq fexe ba njaboot gi séq ko mu wéy dafa baax fexe ba njaboot gi séq ko mu wéy ndax jamono ji jamono joo xam ne liggéey baa ngi ci njaboot gi lii ngeen di dund li ñuy dund lépp waajur yi ñoo ko liggéeyoon kon li ci des moom mooy fexe ba liggéey li ci des ci kanam ci njaboot gi xamanteeg njaboot gi jàppaloog njaboot gi ca jumtukaay yi koy def léegi am na ndax kër goo dem daayira reset yaa nga daayira sët yooyu ni muy ràbbalee sëti kër ga buñ fexee ba ñu ràbbalee sët yi boobaa kenn du mën ci ñoom dara nañ fexe ba yooyu yëg-yëg yooyu am ci ci ci ci njaboot gi boobaa kenn du mën ci ñoom dara eh, li nga wax sànq it sëriñ Fallé waxoon na ko fii ci ndindi ne woon sëriñ Touba moom radiyallahu anhu jaanjub dex la jaanjub dax la jaanjub dax nee na noo ca daanoo rek na nga cay nii ba léegi moom mbir yaa ngi fi maanaam sëñ bi jóge fi am jóge fi pëstéef ak pas-pas rek moo ci nekk ca jamono ju nekk nag ñi nga xam ne ñooy ñooñu di di way fexe fexe yooyu jamono gi nekk liy yonjaxal seenu pexe mooy yaakaar yaakaaruñu woon ne dana deme nii. am na ñu amoon ay natt natt tëranu ay tër wutaloon yoon wi jamono yoo xam ne yaakaar na buñ ko àggee du ko jéggi am na ay at ginnaaw. am na ñu tegoon ay natt yu yoo xam ne yu yu bari la teg ay calcul jàpp ne nangam ak nangam bu xewee moom jamono ju maanaam yoon wi du jéggi loola day day day day day jeex kon mbir mi sëñ bee ko yore boppam léegi des nag moom mooy ku nekk ci am ci pas-pas am ci góor góorlu ba euh, bokk ci ñi koy sàmm ni ko sëriñ Mamoor waxee léegi kon jéego yi daal jéego yu ama am solo la jéego yu rafet la jéego yu dundal ak mbokk la juy dundal euh, roox al uxawi la lu mat a sàmm la lu mat a tasaaralee nit ñi ndax nit ñi xam ko waaye bu ñu ko defoon nii li tax jumtukaay am solo bu buñ ko defee nii rek ñu bari yéen li ngeen séq séq ngeen ko waaye lii li li muy li muy day répercuté day jeexital ci mbooleem askan wi ci askan wi yaatu na e, ci jeexal nag e, yàlla na bu yàgg ba tey ndax ay kóllëre la yu dëgër jëleel naa maam Thierno Ibra Faati ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu loolu dañ ko jëlee teg waaye jëm jëmi Sëriñ Falilu ak maam Thierno Ibra Faati e, fa fa li sëñ Fall waxoon ci nga xam ne wax na ne li nekk ci moom maam Thierno ko ci def ndax li mu ne woon maag sama mag ju baax ji Cheikh Moustapha Karim sunu baay Thierno dañoo jàngal bañ ne ar mu yar ñu bañ ne nër mu yee ñu bañ ne jar lan moo des dañu jàngal bañ ne ar mu yar ñu bañ ne nër mu yee ñu bañ ne jar kon lii lu dëgër la loo xam ne lu muy dundal am na solo lool eh, ñun ñun taalibe yi nañ ci jànge nañ ci jàngee bu baax a baax xam ne daal pësteef fi mu ngi nii maam ci Faati la mbokkoon ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mbokk ñëpp xam nañ ko bokk wenn wajur day wax ne Sëriñ Tuubaa ku baax la waaye nag kenn gënu koy bokk ku baax la waaye kenn gën koy bokk ndax bi nga xamee ne ñëw na ca ca wane ne ne ca wax ne kat fekk fi bokk yu baax askan yu feeñ di ñoo xam ne jaamu yàlla fañ àggoon ci dayoo ci jaamu yàlla ci gëm alxuraan ci dund ko ci lu baax jàpp ñu woon ne lu gën loolu mën naa nekk bi mu ñëwee moo tax ne lu gën li mën naa nekk ñu yaakaaroon ne dafa desee dese ge du du jàppuñ ko woon aw xas dañoo yaakaaroon daal dëgg-dëgg lii moom lu ko gën mënut a nekk waaye ba mu demee ba woon leen lu ko gën ne nekk na ñoom it nangoo bàyyi lañ nekkoon fekk si ko kenn gënu leen ñoom kenn gënu leen ndax boo ko seetee ay mbokkam noonu lañ sëyoon ci moom li sëñ bi wax léegi noonu ne ñu nit li ñu fas yéene ànd ak njabootu Cheikhul Khadim gi radiyallahu mooy ne maam Cerno ànde woon ak Sëriñ Touba loolu mbokk yi ay bind yu rëy lañ ci war a lañ ci war a jël ñu ñëpp xam ne daal mbir mi réseau bi Sëriñ Touba moo ko yor radiyallahu anhu ku nekk rek sa pësteef moo la ci moo la ci jariñ ku nekk rek sa pësteef moo la ci jariñ waxoon na ko menn mag moo xam ne doon jàmbat gëj a gis sëñ bi loolu ñëw doon jàmbat gëj gëj gi sëriñ bi ne ko maa ngi lay xamal ne ab taalibe day sori ab sëriñam du ko lor geesu leneen lu dul sëriñam am xel di ca nekk moo koy lor xam ne loo jege-jege bu sam xel nekkee ci leneen lu dul sëñ bi te ngay mën a loro waaye loo sori sori bu dee sa pësif sa xel si lépp a ngi sëñ bi boobaa doo ci loro kon yàlla nañu yàlla tënk ci dëgg dëgg nekk tali bi sëriñ Tuubaa di lan lii yàlla nañ ko fekk ati at ñoo ngi jéglu ñoo ngi jéglu baax a baax xam naa kàddu yi wax di yàlla li ci matoon na wax lépp wax nañ ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bëgg a ba muy xale la daldi ànd ak bamba yërëy jikkoom yaak jéegoom yaak tànkam ya bamba ko jàngal moo ko def kaang foore jàngal na ay foore tomas la doore ray ray ya maalika mulki ya man jalla